salaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu aley mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee suñu boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd bii di muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne ci moom la yàlla wàcce téeréem bu doy waar nga xam ne laa yatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi téere boo xam ne bi suñu borom tabaraka wa taala fàttewu ci dara amul lenn loo xam ne lii doomu aadama dina ko soxlawoo ci dundam walla mu koy soxlawoo ci leneen lu dul téere bii wax na ko maa faratna fil kitaab min shay nekk téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent saar wu ci nekk am lu ko tax a jóg booleen boole ñoom ñëpp li leen tax a jóg mooy soppi li nga xam ne mooy pas-pas yi nit ñi nga xam ne dañ koo fas te waruñu koo fas seen ñaar lu tomb di orienté leen ci lu gën la ñu nekkoon saar yooyu jàngoon nañ ko ba am ci ñaar fukki saar ak ñett mu di suratul muminuun moom it ñu jàng ko ba am ci fukki aaya ak juróom-benn fii suñu waram tabaaraka wa taala di waxee tumma innakum baada dalika la mayituun tumma innakum yawma alqiyaamati tubaasuun dañu wax ne ni ma leen binde ngeen jóge ci nii jaar ci ni jóge ci nii jaar ci nii ba nekk ay xale juddu nekk ay ay xale kon ñu judd leen ngeen nekk ba màgg mu ne waaye dana am benn bis nag la mayituuna yéen ñëpp ngeen dee ñu suul leen ci biir suuf ginnaaw ga it yéen ñëpp ngeen dekkiwaat ñu dekkal leen tabarkal la war a door ci aaya fukk juróom-ñaar ci suratul muminuun wa laqad xalaqnaa fawqakum sab'a taraa'iqa wa maa kunna anil xalqi la gaafiliin wala xaafiliin suñu borom nee na wala qad xalaq naa bind nañu fawqakum mu tiim leen sabaa taraiqa juróom-ñaari déele bind nañu fawqakum mu tiim leen sabaa taraiqa juróom-ñaari déeley asamaan sabaa samawaatin summiyat taraiq li anna baadaha fawqa baad déele nag ci ko mooy ku daan war aw fas te bëgg ginnaaw ga neex da nga jël ab saako teg ca tegaat ci beneen saako muy ñaar nga tegaat ci beneen saako muy ñett nga tegaat ci beneen saako muy ñeent ba fu la neexe saako yooyu saako bu ne day tudd déele loolu la ñuy wax déele asamaan si noonu la dafa am benn asamaan ñu teg beneen ca kawam am beneen asamaan ñu teg beneen ca kawam tabarkalla suuf si nag moom nekkul ay déele dafa taqaloo waaye juróom-ñaar la tabarkalla comme ni ko ulama yi di waxee ñi nga xam ne ñooy gëstu ci loolu wa maa kunna nekkuñu nag anil xalqi ci bind gi gaafilina di ca sàggan maanaam amul fenn fu yàlla sàggan ci bind ga nga naan fii de baax na mais nangam loola suñu borom tabaraka wa taala amul ku dul yàlla ku nekk nag loo bind lu nekk day am ay manqué manqué tabarkal gis nga soo seetloo ki bind avion am na tuuti manqué manqué yu baree bari waaye ba ca gën day waar mooy riir mi nga xam ne fu mu jaar kenn ku nekk noppi bàyyi la nga doon def ba mu weesu loola bokk na ci mbir yi ki doon defar saxaar it tabarkàlla jàmbaar la lool waaye saxaar gi fi nekk fa mu jaar rek lay jaar loolaa ko yàq su fekkoon fu ko neex mën na faa jaar kon lay gën a baax waaye tabarkàlla jàmbaar la lool nag waaye teewul saxaar gis ngeen ko ceraay ba dong lay jaar su wàccee raay ba rek àdduna tukki yàlla tabaraka taala li bind wa ma kunna anil xalqi gaafiliin noonu daal suñu borom tabaraka taala noonu la def moo tax mboolem lu dul li yàlla bind ku ko nekk rek am na lu ca xew soo nekkee ci néeg taal sa ventilateur mu lay uppit upp boobee mu lay upp mu ngi lay jox ngelaw waaye mi ngi lay jox feebar boo xam ne bii tabarkal lu ci nekk rek noonu la yàlla nag tabaraka taala boolem lu mu bind da cay bàyyi xel ca yooyee du am lenn loo xam ne da nga naan lii day nangam mais nangam déedéet nee na wa anzalnaa ñu wàccee mina samaa'i an taw ma an ab taw bi qadarin waaye nag cib natt maa an bi qadarin yàlla da koy wàccee ci ab taw laa kathiran fa yafsudu al ard wala qalilan fa la yakfi zara wa thimaar saa bu yàlla wàcce taw da koy wàcce bi qadarin ci nat bu am ndax am na ndox mi noo xam ne bu ko tollee nit ñi lat suuf yàqu waaye am na su ko tollut gàncax gi du naan du màndi ak meññit kon fokk mu natt ko moom jalla jalaaluhu wa azza te at mu nekk li ci nawet la yàlla taw bu déwénee lu toll noonee lay taw la ca nekk nag mooy ni muy organiser taw bi kañ la taw bi tàmbali ak kañ lay jeex foofa lay mbir mi nag waaye fi mu koy li muy tuur ci suuf moom pour gàncax gi jariñoo ko nit ñi jariñoo ko loolu lu tal noonu lay taw moo tax léeg mu taw taw boo xam ne bii day mën a meññal xaal dëkk bi yépp def xaal tabarkal mu def taw boo xam ne bii dafay bari ba léegi maanaam ci ni koy nosee fi muy tàmbali fi muy jeexee xaal du ca mën a am ndax xam ngeen xaal moom bu taw bi baree lool te yaatu ñaare du am bu gàttee te bari nag mën naa am moo tax saa bu ñor kaw amee ñor suuf raar bu ñor suuf raaree ñor kaw am comme noonu la ko olof yi takkee tabarkàlla mu ne kon wa anzalna mina samaa'i maa'an bi qadarin ci nat kon lu yàlla lay wàcce da koy natt moo tax tabarkàlla nga dégg mu naan laylatul qadr fa askannaahu nee ñu dëkkal ndox ma fil ard ci suuf si ay jaalnaahu thaabitan mustaqirran fil ardi li tantafiu bihi waxtul xaaj mu ne ñu daal koy dalal moom ndox mi mu daal di taa nekk ab déeg fa nekk leneen suuf si téye ko gàncax gi fekk ko fa yooyu yëpp mu ne wa inna moonte ñun yàlla day ala zahabin bi ci yóbbu ndox mi la xaadiruun ku ci am kàttan lañu su neexoon yàlla bu ndox mi naan suuf cëpp rek ngeen ko ñàkk bu neexoon yàlla déeg du am te ñay naan ca géej gi ci bëgg seeni fas bu gée bu déeg amutoon tabarkàlla dañuy wéy rekk ca seen coono ya ndax bu nawet ñëwee ba déeg am day dimbale ñi daan wëgg dimbale ñi daan fóot ca teen ba dimbale ñi daan root ak ci sew sewaan yooya yàlla mu ne loolu xéewal la ña koy xam nag mooy ña dëkki àll ba tey root ci déeg yeeg ñoom seen yooyu ak lewetam moom suñu borom tabaraka taala moo tax mu defe ko noonu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla nee na fa ansha'naa ñu sos lakum ñeel leen bihi ca taw ba jannaatin ay tool bu taw ñëwee tool yi daal di am min naxiilin tool yi tàndarma yi am wa anabin ak tooli raisin yi am ca ñey bay tàndarma ak raisin bu dee ci ñun tooli gerte yi am tooli suuna yi am tooli feela yi am tooli mboq yi am tabarkalla tooli puluux yi am yu yépp daal di amee ci benn taw bii nga xam ne mennam ndox rekk la yàlla suuxat ci yooyu yépp lakum am ngeen fiihaa ca tool yooyee fawaakiha ay foyteef ngeen wax fruit kafiratun yu bari kathiratun yu bari wa min haa ca foyteef yooyee taakuluna ngeen di lekk am na ci foyteef yi yoo xam ne day génn rek la nga daal di jëfandikoo daal lekk mu am solo lool du jar ngay rënk jar ngay denc fa mu yàqu daal mooy boo koy jéem a gaze mbaa nga koy xayli loolu mën naa jur feebar waaye soo bàyyi ba mu ñoral boppam waddal boppam mbaa mu ñor nga wàcc indi la dafay neex lool wa min haa taakulun loolu defe naa ne waa puut xam nañ ci dara wa shajaratan ñu defal leen geneen garab goo xam ne garab ga taxruju ma ngay faral di génne min tuuri sayna ci tuuri siina foofu la ëppee ca tuuri sayna ñu koy wax zaytun di garab goo xam ne gi ci garab yu barkeel yi la bokk yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne kullu zayta wa dahanu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka axrajahu imam ahmad mu ne lekk leen zayt muy zaytun nee na diwoo leen ci maanaam noonu ñuy tocc mi ko mu ne ndaxte garab la goo xam ne gii moom mi ngi jóge ci doom la boo xam ne mi ngi jóg garab gu barkeel yàlla mu ne kon wa wa shajaratan taxruju min tuuri tam tambutu garab ga day sax bi duhni ci diw wa sibxin ak daakaande lil aakilina ci ñi koy ñi koy lekk daakaande nag bu ci arab udd mu lay tudd udd mu bu doon ci ñun tey mooy boo xaree sa mburu loo ca mën a def ci biir lekkaale ko ci rek udd mu lay tudd bu doon ci waxin wolof nag mooy soo jamee garab meen ma cay toqe ñu koy tuddee daakaande wala bu dee ci ñëpp ñu koy wax laalo loola di ci génne loola mooy sibx lil aakili ca ña koy lekk ndax garab googu dafa am njariñ ba dañ ko daan jël ñoom arab yi di xar mburu di ko def ci biir di ko di ko lekk wala boog ñu fab ko diwee ko ci biti ni nga xam ne noonu la lakkati mburu yi def mburu yi léegi door koo dugal ci fuur bi ñu lakk ko mu di kon kéemtaan gu suñu borom tabaraka taala def ci garab googi di zaytun nekk ca fa muy gën di meññ muy tuuri sayna ngeen jàngoon ko ca wa tiini wa zaytun wa tuuri sinin wa haasal baladil amin suñu borom nee na wa inna lakum amaat ngeen fil an'aami ci jur gi la ibratan beneen dars la ibratan waaru mu ne jur gi day gëléem xar nag bëy yooyu day bu fekkee ñoom ngeen dëkkal mu ne ah mu ne ñoom war nañ di leen mën a waar saa su nekk ndax kenn ku nekk ci ñoom usine buy dox nga gëléem usine buy dox la te doy waar lool nag usine buy dox la te doy waar lool waaye xar usine la buy dox te doy waar lool wa inna lakum fil an'ami la ibra waaru soo jëlee lu mel ni gëléem afala yansuruna ilal ibili jë da lay wan ne gëléem li gën a yéeme ci mbir yàlla bind ci la bokk benn xoolal ni mu nangoo nga ñëw bënn noppam dugal ci buum ñoomat ñaaral ba giléem soo ko tooñee du ko fàtte mukk li feek mu lay jekku ba fayu ñaari at ba ñetti at dina fayu ñetteel ba giléem soo ko wareeti di ko wayal du sonn mukk way woo mën di way del way rek waaye bu ko dee dégg du sonn mukk lu mu sori sori dina la yóbbul lam ko sëf ba àgg foofu ñeenteel ba giléem su xasee toog loo sëf ci koo boo ne ko jógal mu yëkkati ko juróomeel ba gileem bu dee daw lu xel wi xiir xiir xiir su rombee jaan dina ko rey door a jàll moom giléem juróom benneel ba gileem mën naa toog ñetti weer yoo xam ne du naan juróom ñaareel ba gileem bu ndox duggee ci biiram bi mu koy sanguwaayaat ndox moomu du ko na mel dong lay mel ak lu mu yàgg-yàgg ci biir bi ak yeneen kéemtaan yoo xam ne ay dars la yu nekk ci giléem muy waa waaxu wéy bari ci lool suñu borom ne giléem mi la ibra bokk na ci giléem lu gannuus bi bari bari bari tànk bi dugg ci biir lu gannuus suuf si bari bari giléem bu tegee weew ci kaw rek lay tegee tawarkal mu ñëw ci albaqar ak nag wala bokk ak xar ak bëy ñu ñëpp yàlla mu ne seeni kéemtaan lañ ñu ne ah mu ne nusqiikum dañ leen di màndal mimma fii butuniha la nekk ca seen biir ya la ne ca biiru gëléem soxla nañ ko la ne ca biiru nag soxla nañ ko la ne ci biiru xar soxla nañ ko te it loola nekk ci biir ba kat ma ngay jóge ci diggante sébrit deret sébrit mooy bu lekkee ba noppi bu reesee bu génnee li muy doon nga xam ne ay neefere lay doon war a dem ci duus la ci des di deret deret xam ngeen ne soo taajee soow paanu soow nga tànk benn kopp deret sotti ca rek kenn naan soow te li na ci quantité ci yaramu jur gi ci wàllu deret moo ëpp li ci ne ci soow boo boole woon nag soow euh, deret ji ak sébrit si li ci yaram wi mat na ñett cay li ne ci moom ci am soow waaye teewul soow mi dana génn ci diggante sibri soosu ak deret ji dikk nekk soow ndax li muy lekk muy nekk am ñax ñax mooma ca la yàlla di mooñe lay nekk deret mooñ ca deret ja la nekk soow nga ratt soow mi mu nekk lu rafet set wecc weex tal tabarkàlla bu dee ci tubaab yi buñ ko séggut naan ko dañuy faatu ndax ñoom ni leen yàlla bindee ñoom seen foofee affaire microbe daf leen a doy waar bu dee ci ñun ndonga daara yi dañ daan dàq am xar ba jàpp ko ñu téel la nga jaaxaan nampa namp ba doyal dem te du la wàññi dara moo tax ma mosuñu wàcc ci hôtel ab tubaab indil ñu meew ko ma àndaloon wala ñu ma àndaloon bi ñu ko taajee ma daal di jël daal di góox mu ne ah, kii de balaa suba mu faatu waaye bu bisu tey bii ren la ci juróom at waxuma la waaye tabarkal la noonu kéemtaan yàlla ci la bokk subhanahu wa taala nusqiikum mimma fi butuniha waaye baatu mimma fi butuniha day yëgle ne la ci biir ba lépp duñ ko lekk boo xoon nusqiikum maa fi butuniha kon mu am muskila waaye mimma fi butuniha walakum am ngeen ba tey fiiha ci jur ga manaafiu yeneen njëriñ yu bokkut ak soow kathiratun yu bari bokk na ci njariñ yu bari ya soo yilifeem xar mbaa ngi yilif géléem mbaa nga yilif nag xool gi koy xool day dundal sa ruug yi boo moomeem xar ñu sang ko ba set nga raay ko xool ko nii xool gi koy xool day dundal sa ruug xool gi koy xool dalal sax xel mi xataa léeg-léeg ngeen gis pël bu bëri ay nag rek am wér-gu-yaram lool tabarkal waaye pël bu néewi nag rek foo ko fekk ma ngay jabbatu di wax ay wax yi suñu suufe di lakk-lakk yu yoonam nekkut tabarkàlla ndax nag yu néew doole ndax nag yu néew yooyu yàlla nee na walakum fiha manafiu kathira soo yilifee jur gu bari booy xool day neex rek tabarkàlla wa minha ci jur ga it taakuluun ngeen di lekk wa minha taakuluun ci jur ga it ngeen di lekk maanaam lekk yàpp wa ndax xam ngeen ne ku ni gëléem nga ne ko deq rendi ko daal di fab aw yàppam teg cib taal mu ñor nga lekk ku toll ni nag nga ne ko deq rendi ko xar ak ñoom seen ñooñu yàlla tabaaraka taala mu ne lii day ay kéemtaan la yoo xam ne bu ma ko defutoon du ngeen ko mën ndax muus mi ñu dëkkal naga foofu waaye kenn du ci xewle ngénte daal di ronqi muus ci sa kër bi ndax muus du ko nangu muus moomu li muy nekk ci kër gi moom sax moo tane janax janax moomu tane mbóot ñu amu ci kenn koo xam ne kii dañ leen tabaskee mbaa ñu leen di ngéntee mbaa ñu leen di céetale ndax yàlla tàggatu leen moo tax yi yàlla tàggatut te ñu gën a tuuti mu bàyyi fi yu rëy ñu tuuti yooyu fekk yu rëy rëy mu tàggat leen yàlla mu ne ah wa inna lakum fil an'ami la ibra kon war ngeen cee waaroo wa minha taakuluun wa alayha ca kaw jurga wa alal fulki ak ca kaw gaal ya tuxmaluuna lañ leen di sëfe yéen ak seeni bagage wa alayha ca kaw jurga gëléem mbaam fas ak ñay war nag wa alal fulki ak ca gaal ya bato yaag looco yaag yu demee ni ki yooyu yàlla mu ne tuxmaluuna bu dee ci fas léeg-léeg nga war ko moom ci boppam wala nga takk ko sareet war ko xam ngeen ne bu njëkk loolu moo fi xewoon fas bu rafet ngay am daal di koy wutal laytaay rafet war ca kaw tabarkalla suñu maam maam borom Tuubaa gis ngeen ne façon bu rafet la woowu nga xam ne tànk yenn meloon ak kanam gaag jëbb yaag pell ya tabarkalla loolu moo xewoon wa alayha wa alal fulki tuxmaluun otoo ko wuutu waaye teewul ba tey taar ba woon ca moom ma nga ca wa tuxmaluuna alal ibili fi l barri kama tuxmaluuna sufuni fi lbaxr fa in al ibla safainul barri kama an loolu boo demee ci tafsiru ak docteur Ali Sabuni noonu la ko tafsiré suñu borom tabaraka wa taala kon fi mu waxee ne wa laqad xalaqna al insana ba ci fi mu waxee ne wa alal fulki tuxmaluuna ñeenti xeeti tegtali kàttan a ngi fi tegtal bu njëkk bi mooy ni doom aadama di walbatikoo ci juróom-ñeenti atwaar ci biñ koy bind ba baa muy àgg ca muy dekki loola benn kàttan la buy wone màggaayu suñu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu mu ne day bind doomu ci sulaala ñaaral ba ci tiin ñetteel ba mu def ko nutfa ñeenteel ba mu def ko fii qaraar makiin juróomeel ba nut fa boobu mu def ko alaqa muy lumb bu wékku juróom benneel ba alaqa woowu mu def ko suux juróom-ñaar ba suux woowu mu def ko aw ay ay ba yax yooyu mu nëbb yàpp juróom-ñeenteel ba mu bindaat ko géneen bind daal di ne fa tabaraka allahu rabbul alamin ñaareel ba bind gi mu bind juróom-ñaari asamaan day tegtale ci kàttanam moom jalla jalaaluhu ñetteel ba wàcc gi muy wàccee taw bi mu jóge asamaan ya cay saxe-saxe ca ya cay màgge-màgge ca loolu tam ci tegtal yi wane na yàlla tabaraka wa taala ku am kàttan la te kenn la ci kàttanam gi ci la bokk ñeenteel ba njariñ yi nga xam ne am na ci bàyyi may mu tudd ca ñeent jariñoo gi ñuy jariñoo soow mi jariñoo gi ñuy jariñoo li nga xam ne mooy leen mi jariñoo gi ñuy jariñoo yàpp wi waaye jariñoo gi ñu jariñoo mu ñuy toxal ñu koy war di dem feneen suñu borom tabaaraka wa taala moo toll noonu mu ñëw nag walbati nett li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon mu daan ne wa laqad arsalnaa yónne woon nañu nooxan góor gu ñuy wax noox ila qawmihi jëmee ko ci nit bu ña nooxun ñëw di woo itam ña jëme leen ci suñu borom tabaraka wa taala yàlla daal di koy nettali alayhi salaatu wasalaam la nga xam ne moo ko daloon ak la nga xam ne moom la doon waxanteeg nit ña ndax moom itam bu gisee lu mel noonu loolu bañ koo bett ci aw nitam ba mu leen ko ba mu ko yónnee mu def ni nit ñiy def ndax léegi bu ñu dajee fal benn waaye mu jiituñu da nga gis mu des benn discours boo xam ne bi mooy ubbi ay mbiram wax ca lu gàtt-gàtt orientation bi nga xam ne ci la bëgg a teg nit ñi ba bis bu ñu demee ba ca kanam bu ñuy defaat congrès wala assemblée nga gis ne li mu tëraloon la ñuy natt ba xam jaar nañ ci wala dem loolu rapport yooyu nga xam ne mooy ànd ñu jëm ko jokkale moom la nooxun alayhi salaam di ubbee bi ko yàlla yónnee ci nit ñi ba mu ñëw moo tax fa qaala mu ne yaa qawm ubudullaha wéetal leen yàlla ndaxte maa lakum amuleen min ilahin ci jenn yàlla xayruhu judul moom ku dul moom ku ne doo yàlla ubudullaha maa lakum min ilahin xayru amuleen jenn yàlla ku dul moom fa qaala afala tattaquun mu ndax du ngeen ragal yàlla maanaam noonu ma wax ba léegi ubudullaha maa lakum min ilahin xayruhu afalaate tattaqun moo ndax du ngeen ragal loolu du ngeen ragal ay mbugalam ci bu ngeen jaamoo keneen ku dul moom fa qaala mu tontu ko almalawu assemblée ba baatu almalawu saa bu ñëwee ci alquran mi ngi toll ni assemblée nationale di toll ci adduna si léegi ci réew yi maanaam mooy rek saa boo dégg ñu ne qaala almalawu mooy ñasañ a wax ñasañ a wax saa su nekk mooy aw nit ñu aw nit di tànn ne leen wax leen moo tax almalawu ñoo koy tontu su wax jotee ñoom ñooy wax su société bi wax wax leen ñooña wax ñoon ñu jot jëloo société bi tax ñoom it tabarkalla ñu am taxawaay boo xam ne bii bu jara bàyyi xel la fa qaala wax almalau assemblée ba allazina kafaru ña dakkuur min qawmihi te bokk ñu itam ñëpp daan ne maa haasa waa ji paa bi nekkut illa basharun lu dul mbindeef rek mithlukum mel ni yéen yuriidu dafa bëgg an yatafaddala aleykum mu gën leen walaw shaa allahu bu neexoon yàlla tem nara yónni ci nit ñi ku ko la anzala malaikatan ay malaaka lay kon du ñëw ci suñu biir ñu naan kii la tànn kii kon ay malaaka lay wàcce waa almalau bi wax ba léegi daane ko maa samina bi haasa musuñoo dégg lii fii abaina al ci suñu maam yu njëkk ya kon mbir mii mbir mu bees la mbir mu yàggut la kon kii du ab yonent bu leen ko topp in huwa illa rajulun moom nekkul lu dul waajoo xam ne bihi jinnatun dafa am saddum jinne saddum jinne mee ko jàpp moo tax mu ñëw fii naan yàllaa ko yónni waaye bu amoon wér-gi-yaram moos ànd akom xelam ànd aki ciram du ñëw fii naan yàllaa ko yónni ndax yàlla du yónni ba tey almalaw ñooy wax assemblée léegi fatarabasu bihi xaar leen ko xataa xiin ba ci kanam rek su ko defee mu dee ñu daal di continuer ci li ñu nekkoon ndax coow li muy wax daal bari na discours yéeg yooyu xaala noohun daanne rabbi yow sama boroom yaa dégg lii ma dëkk bi tontu léegi nag tàmbali moom noox ca ba demee ci soratu noox di leen waar guddeeg bëccëg di leen fàtte di wax ñoom ñu yëngal seen mbubb ya di nëb di di sakk seen nopp ya lu la ñu dugg ca ndax bañ a dégg li mu wax kullama daawtahum li taxfira lahum jaalu asabiahum fi adanihim wastaxsaw siyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaara summa inni daawtuhum jihaaran summa inni aalamtu lahum noohu nekk ca rek ndeysaan ba muy junni at yi manqué juróom fukk ba muy junni at yi manqué juróom fukk yoo xam ne ci seen biir la nekk di leen woo juróom-ñett fukki nit rek ñoo ko gëm quatre di gën diggante góor ñi jigéen ñi juróom Ah, junni at yu manqué juróom fukk mbokk yi mu leen di woo ñii rek ñoo ko gëm moo tax yàlla di ko nettali yonent bi alayhi salaam ne ko yow ñaar fukki at ak ñett nga woote kii juróom ah, wala boog junni at la manqué woote manqué juróom fukk yow ñaar fukki at ak ñett kon soo seetee ci moom sa xel dana mën a dal tuuti xaala mu ne ba mu agsee ca fa nga xam ne fa la mën a yem rabbi yow sama borom unzurni dimbale ma bi ma kazzaboon ci li nga xam ne ci lañ may weddi tabarakàllah ñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali nettali bi yonent yàlla noox di yonent bi mu njëkk a yónni te woote woote bu yàgg ndax junni at yu manqué juróom fukk ku koy woote yàgg na lool nit ñi weddi ko lool ndeysaan mu sonn ca lool fu mu toll sikkim bay fënd fu mu toll di froissé fu mu toll ma nga ca bu liwee bu tàngee bu naajee bu keree bu guddee su ba bëccëgee tabarkaale yëpp ma nga ca te nag euh, lu mu waroon jafe ko lool muy dox ak tànkam di seet mu jaaxlee nag qaala rabbi unzurni bi ma kazzabuun yàlla mu ne fa awxaynaa ilayhi ñu wax yu ko yàlla daal koy wax yu ne ko ah, danaa la jàppale waaye lii am mooy dafa am taw bu mag bu ma bëgg a def boo xam ne suuf day balla ndox asamaan di sotti ndox loola nag su fekkee mbirum ndox la lala ca mën a rek mooy an asnail fulka mooy defal ak gaal defaral ak gaal bi ayunu naa ci suñuy bët ñu lay sàmm di la dicté naan la nii lay mel nii lay toll ba baa ngay àggal ndax doo minise ginnaaw doo minise nag tey nga nar a mën sa defar gaal te it tax nga war a nekk minise kon fokk ma sàmm la xool la man mi nga xam ne man lépp laa xam man laa dicté nan la ñuy defaree gaal mu daal di tabarkalla defar gaal suñu borom tabaraka ko taala di sàmm di xool ba gaal gaag mu ne ko bi ayunina wa wahyina bi amrina wa taalimina fa saa jaa su jotee na suñu mbir ma maanaam waxtu wàcce mbugal ga wa faara mudaadi fuur wa faara mu daa di daw attanuuru fuur ba maanaam lakkukaayu mburu mi daal soo gisee mu di fa ball am ndox loolu la mu fassiru wax ñu ne jaala allahu zalika alaamatan li nuux ala halaaki qawmihi faara al fi tanuur allazi yaxbasu fii ndox mi baree bari ba commencé di balle fi puur bi nekk ah mu ne ko waxtu wa jege si na fasluk dalal di dugal fiihaa ci gaal gi min kullin ci képp lépp lu fi nekk zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar mu defar gaal ga taw bi tàmbali jëbe kaw li tàmbali balla jóge suuf mu gis ne mbir mi mi ngi jege mi ngi jege si tabaarkàlla mu daal di tàmbali nag yéegal ñaar-ñaar yégal fas wu góor fas wu jigéen xar mu góor xar mu jigéen bay wu góor bay wu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen di jël rek muus mu góor muus mu jigéen xaj bu góor xaj bu jigéen kero la muus ak xaj jubóo di ko ba bisub tey dootuñu jubóo mukk mukk ba ilaa yawmil xiyaamati keroog ba ñu leen di sëf ca gaal ca batu ba ndax xuloo nañ fa xuloo boo xam bii tax na xuloo ba résultat ya tax na ca xaj doxe mel nii mu mel ca la muus doxe mel ni mu mel waaye it ñetteelu résultat bi mooy ca la ñu merooxee ba ilaa yawmil xiyaama ci duutu ñu juboo ndax bi nooxun di yéegal nit ñi di yéegal bàyyi may dafa yëgal ñaari xaj bu ak bu jigéen yéegal ñaari muus bu góor ak bu jigéen ak mbaam yeeg yu yépp min kullin zawjayni ithnayn ba mu ko defee nooxun daan ne yéen a ngi mel ni ku umra walla ku armal kon li feeg ñuy wàcc da nekk ci jamonoy armal bu fi kenn jotee ak soxnaam ñu ne waaw ñu dugg ci gaal gi diir ba daal di yàgg lool a ah, kalbu ki ñoo xaj daal soxla soxnaam te xam ngeen soxna su kalbu moom ñaare du gàntul jëkkëram ndax ku mën a sëy la ku am wëllëre moom xaj boroom kër bi daal koy soxla mu daal di nangu muus daal di cay yem ndax muus ku muus la fu ne mu dugg fay comeetu xam naa di seet lu ma am far gis leen amul lenn lu muy wax xanaa mu ñëw ci yonent yàlla noox daal di koy netti l'histoire bi ne ko li nga tere woon ci biir gaal gi day man gis naa ku ko def nooxun daal di ku ko def mu ne kalbu nooxun daal di woo kalbu xas ko yedd ko ci kanam nit ñi ñaan boromam ne yàlla yow de yaa ñu moom ñun ñëpp te it li ma doon def man rek maa ko na yëg maag sama soxna yow waaye kii di muus comeetu na ba gis ma daal di may weer ci biir nit ñi yàlla maa ngi la ñaan nga fayul ma suñu borom nag daawatul mazlum dégg nga ni ko ñu ci waxee ku ñu tooñ ku boo dëkk say loxo yàlla mu fayul yàlla daal di koy fayul ba fi nekk fépp fu muus soxlaa soxnaam koñ ba mu nekk waa koñ ba ñëpp daañu yëg ne jamono yii ñuy wax day muus daa soxla soxna si mu siiw a siiw lool moo tax saa bu muus ne soxna si acca dana fa yooxu yooxu yoo xam ne waa koñ bi yëpp daañu ko dégg loola jural muus mu tëlee sëy ndax weer sa jëkkër ba ñëpp dégg ko tax na ba doom ju muus am ma ngi koy jur ca biir néegi nit ñaag armoire yaag pañe yaag baye yaag ruq-ruqaan ya foofu la koy jur waaye lu doom yi bari bari dañ koy sol cib saako dem turu ca sën ba yii oto yenu leen yii euh, saret yi mbëkk leen ba daanaka muus yëpp dee moo tax dëkk bi mënoo fee gis juróomi téeméeri muus yu loolu xaj mee nga xam ne moom ku mën a sëy te mën a ormal jëkkëram moom it na ba xaj fa muy amee doom lu mu sori sori moom buy am dam da koy làq waaye da ngay gis dañuy jëli doom ja indi ci kër gi di lakk yàpp di ko jox di jënd yàpp di ko jox takkal ko ceinture ci baat bi di ko raay te léeg-léeg ngay dem ŋàbb ko léeg-léeg nga gis xaj bu ñu dugal avion ànd ak boromam léeg-léeg gis xaj bu ñu jaayee million waaye muus moom daanaka kenn mënu ci deux cent cinquante dara waralu ko lu dul xew-xew bu rëy bii nga xam ne moo xewoon fii te mu ñàlloon ko li nga ci jànge mooy kon képp kuy sëy na bàyyi xel ci nii xaj def waaye na bàyyi xel ci nii muus def ñaar ñetteel ba képp koo xam ne kii nekk nga ci àdduna si na nga bàyyi xel ne boo weeree nit te mënoon koo suturaal bu ñaanee suñu borom daf lay weer rek ni mu weere muus ñeen baal waaye loolu lu am solo la ci xew xew gaal gi tabarkal was fasluk fiiha dugalal ci gaal gi min kullin ci lépp lu ne ci kaw suuf ni zawjayni ithnayni zawjayni góor ak jigéen ithnayni ñaar wa ahlaka ak sa illaa sabaxa lu dul koo xam ne jiitu naa alay ci moom alqawlu wax ji minhum ci ñoom mu ne ko boo safee ñi it wax mil ahlaka nga safaale sa waa kër sa nag koo xam ne kii dogal naa ci moom mu nar a alku kooka bu mu yéeg bokk na ca jabaram ja ak doomam ja jabar ja yéegut doom ja yéegut ah jabar ja bokk ca ña lab doom ja bokk ca ña lab ndax jabari noox ci jabar yu jubut yi la bokkoon daana ñëw fekk noox di jàngale mu fa baaram ba teg ca jëba ne ko këmax ne ko ñi lay wër dey nga leen di waar su ñu la xame woon ni ma la xame du ñu la wër nii ñu la wëre doom ja it noonu la meloon benn waaye la woon boo xam ne moom doom ji rek tabarkalla jubati lool li bàyyam di wax du ci wax dara léeg-léeg mu teg baaram bi ci bopp bi da di koy wëndeel wane ne góor gi daal xel mi nangam ak nangam yàlla na kon ñooñu bu ñu dugg ñoom wala tuxaatibni bul wax ak man bul ma ñaan njëkk fi lladina zalamu ci ñi nga xam ne dañoo tooñ innahum ñoom ñi nga xam ne zalamu dañoo tooñ muxraquun ñoom ñëppay lab ñoom daal bu ndox mi ñëwee dina leen labaaleel ndax qadaytu annahum muxraquuna maxkum alayhim bil xarax fokk dañuy lab fa isa sawayta fa isa stawayta soo toogee ba jekk nag ante yow wa man maaka ak ñi ànd ak yow alal fulki ci gaal gi nga xam ne toog ngeen ba jekk mu déqi départ rek moo ci des fa xul na nga wax bala ñoo départ alhamdulillahi alladi najjaana min alqawmi alzalimin alhamdulillahi alladi najjaana min alqawmi alzalimin mu ne kon loolu na nga leen ko digte yéen ñëpp ngeen ànd ko ante yow wa man maaka alal fulki fa qul nga ne alhamdulilah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne najjaana sawe nañu min al qawmi ci nit ñi azalimina tooñkat yi ndax sawe nañu ña ngay dem tabarkalla mu daan ne yàlla ne ko waxul na nga waxi ne rabbi yow sama borom anzil nii maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma wàccee munzalan mubaraka wàccin wu barkeel wa anta te yow xayrul xayrul munzilin yaa gën ji aji wàccee juy wàcc maanaam ni ngay wàccee say jaam fi nga leen di wàccee ku dul yow munta wàccee noonu ay gaayam fa leen di wàcc yàlla mu ne inna fi zalika nekk na ci nettali bii liñ koy tënk-tënk la aayaatin ay mandarga yuy wane bennug yàlla gi wa in doon doonte nekkoon nañu la mubtaliin doon ko nattu wa in al wa sha huwa muxtabirina lil ibaad bi irsalil mursalin li ko waraloon lépp mooy rek yónni yónent yi ngir nattoo ko nit ñi nga xam ne ñoom la tabaaraka wa taala bind noohun daal di dem gaal ga daal di wàcc kanaan doom ja lab jabar ja lab nit ñëpp sowe loolu la ñuy wax tuufaanum noox tabarkàlla tuufaan mooy taw bu bari wala alkande gu bari sama ginnaaw ga insha allah nañu min baadihim ci ginnaaw niti noox ya aw nit aaxarina ñeneen xarnan aaxarina ñeneen te mooy xawmu aad niti aadiya niti aadiya ñu yónni ci ñoom xóot fa arsalna fihim ñu yebal ca rasulan ab yonent yonent ba di yónni yàlla xóot ba mu ñëwee mu ne leen ani abudullaha jaamu leen yàlla maa lakum amuleen min ilaahin ci benn yàlla xayruhu ku dul yàlla afala tattaquun mu ndax du ngeen ragal yàlla defe naa ne su ngeen seetloo discours Huud bii ak discours Nooxun bii amul benn xajali ko yaa qawmi ubudullaha maa lakum min ilaahin xayruhu afala tattaquun dama ci aaya ñaar fukk ak ñett jooju ci suratul muminuun nga ñëwaat ci aaya fanweer ak ñaar bii ci suratul muminuun daa gis ne ubudullaha ma lakum min ilahin xayruhu rek nga gis afala tattaqun moo di yonent seen mission yi benn la waaye seen jadd-jaddi xeet moo dul nekk benn yonent bu nekk li ngay njëkk wax mooy laa ilaha illallah ana rasulullah ubudullaha ma lakum min ilahin xayruhu afala tattaqun laa ilaha illa ana rasulullah loolu moom yonent yépp ñoo koy bokkale waaye liñ dul bokkale nag ci ginnaaw gi mooy wàllu sharia da nga gis yonent boo xam ne bu ñëwee bu waxee la ilaha illa allah ana rasulullah day daal di song wàllu économique wax ne nit ñi ni ngeen di doxalee économique bi njënd meeg njaay mi nii ku mel ne yonent yàlla gis yonent boo xam ne bu ñëwee day wax ne laa ilaaha illallaah ana rasulullah ba noppi daal ne nii ngeen di doxalee politique bi nii ku mel ne yonent yàlla wala yonent bu ñëw ne laa ilaaha illallaah ana rasulullah ba mu noppee ci loolu daal yéen day waa société jigéen ñi ngeen bàyyi ñuy sol ay pantalon ak góor ñi ngeen bàyyi ñuy takk ay caq ki ci yéen du nii ku mel ne yonent yàlla maanaam yonent bu nekk rek. bi nga waxee laa ilaha illallah ana dafa am benn déviation wala benn jadd-jadd bu am ci saw xeet jadd-jadd boobee moom nga jéem a jubbanti lu jafe nag la jubbanti jadd-jadd loolu la yonent yàlla loot no xóot kon ubbee discours am moom it ani abudullah ma lakum ilahin xayru afala tattaquun wa qaala wax moom almala'u assemblée min qawmihi te bokk ci na nitam allazina kafaru ña d'accooru ca lam wax wa kazzabu bi bi liqaai l axira weddi daja gañ daj nara dajak yàlla wa atrafnaahum yàlla ñu ne ñu ñu ñu ñu jox leen neexitu àdduna maanaam ay xéewal ay noos fi l xayaati dunia loola tax ñu ne maa haza kii nekkut illa basharun lu dul mbindeef mithlukum bu mel ni yéen yaakulu mi ngi lekk mimma taakuluuna minhu ci li ngeen di lekk wa yashrabu muy naan mimma tashrabuuna ci li ngeen di wala in ataatum bu ngeen toppee basharan bindeef mithlakum bu mel ni yéen innakum yéen waa société bi yépp yéen waa réew mi yépp isan la xaasiruun yéen ñépp a pert yàlla ñu jàppale ak si nañ ci aaya ak ñeent ci suratul muminuun di ñaan suñu borom tabaraka wa taala muhammadin amin mbokk yi déglu dikk nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci suñu dajab ñetteel ci suratu almuminuun ñu ngi taxawoon ci aayab fanweer ak ñeent suñu boroom tabaraka wa di wane taxawaayu nit ña nga xam ne ci ñoom lay yebal yu yi alayhimu wasalaam mu nettali woon ñam yónni woon noox dara cay jóge nettali ñam yónni ci ñoom Huud ak wax ya nga xam ne moom la ñuy wax ndax déggoon nga ñu naan ma haza illa basharun mithlukum yaakulu mimma taakuluna minhu wa yashrabu tashrabun wala in ataatum basharan mithlakum innakum isan la qasirun foofu la ñu taxawoon ñuy wax ne kii ñu yónni ci ñoom muy xóot du dara du lenn lu mbindeef ni ñoom ñu ne liy wax ne mbindeef la di ko wane mooy li ñuy lekk lay lekk li ñu naan lay laan ñu ne bu du toon mbindeef wala bu doon yonent du lekk li ñuy lekk du naan la ñuy naan foofu li ñuy wane mooy ñoom dañu jàpp ne doomu aadama su ngeen bokkee di lekk li ngeen di lekk bokk di naan li ngeen di naan tanente amu fa te ndekk liy tanente di def ci nit loola xol lay doon loola taqwa lay doon loola imaan lay doon waaye doon ci mbirum lekk ak naan ak col ñoom seen yooyu nit ña ñu ne almalaw assemblée ba ñu ne wala in wala in ataatum basharam mislakum su ngeen toppee mbindeef ni yéen innakum isan la xaasirun kon ngeen perte kon ngeen ñàkk li nga xam ne ci ngeen nekkoon di ko doxale foofu la ñu taxawoon war a tàmbalee tey ci aaya fanweer ak juróom ci suratul muminun ayacidukum annakum ida mittum wa kuntum turaaban wa izaaman annakum muxrajuun nit ñi nee nañu ayacidukum mu ndax daf leen di dig moom yonent bi annakum ci ne yéen ida mittum bu ngeen deexee wa kuntum turaaban ngeen nekk suuf wa izaaman ak yaxi kese suux ya dem yàpp ya dem seen butit ya dem seen kawar ya dem ya yàpp dong de yax dong des fa ak suuf nee na annakum yéen muxrajuuna dañ leen di génnewaat ci bàmmeel yi ngeen nekkaat ay nit loolu la gaañ a wax annakum mu nekk takiid li annahu lamma taala alkalaam xasuna takraar moo tax mu ne a yaidukum annakum dem bay jeexal daal ne annakum muxrajuun noonu la arab di tëggee tabarkàlla lafz yooyu nit ñi ñu ne hay aata aata lima tuwaadun hay aata sori na ay haata sori na lima tuwaadun lii ñu leen di dig hay aata mooy baatu baawuda baawuda baawuda hada alladi tuwidunahu min al ixraaj ñu ne mukk loolu munta am nit ku dee ñu suul ko suuf si lekk yàppam lekk ay yéppam ba mu des tabarkalla yaxya ñu ne loolu daal nekk na loo xam ne lii moom du am mukk ñu ne ñu ne xëy aata waaye xamuñu ne doomu aadama dong ma bu fi benn waaye ñëwoon nga jox ko craie mu bindal la benn mbir ci tableau nga ne ko ah yow de si lii rafet na da koy effacé ne ko defaat ko waxuma la mu defaat ko waaye buy defaat lan nekk woon rafet na tax na bi muy defaat mooy dàq boo fekkee benn fecckat mu dóor pooj boo xam ne bii tabarkalla fecckat yi bëgg nañ ca bu dellu si ëllëg ñu ne ko sa pooj yu démb bi day tabarkalla buñ ko tàccee mu def bu ko dàq ñu boroom tabaraka wa taala mi bind nit jëlee woon ko ci suuf yóbbu ko ci ndox dugal ko ci ndiggu góor jële ko ci yóbbu ko ci biiru jigéen jële ko ci mu ñëw àdduna nekk xale màgg nekk perental màgg tuuti ba mu yàgg muy dégg waa ji ba mu yàgg muy dégg ngóor si ba muy dégg góor gi ba mu yàgg muy dégg paa bi ba mu yàgg muy dégg maam ñu rob ko fekk bi mu faatoo dama ne kooku ci ko jaarle woon fii génnewaat ko indiwaat ko lu ko yomb la tabarkal waaye nag koo xam ne kii li ngay xalaat di ko tëral yaa ngi koy tëral ci man-man doomu aadama di ko natte foofu su boobaa day sori dañ koy natte ci man-man suñu borom tabaraka taala kullu ficlin faaciluhu allahu subhanahu wa aw kullu ficlin usnida ila allahi subhanahu wa taala fa allahu qaadirun ala zalika ne in hiya dund gi nekkut ilaa xayaatuna dunya lu dul suñ dund àdduna gi na mootu dañuy dee wa naxyaa di dekki wa ma naxnu wa naxyaa di dund wa ma naxnu bi mabuuthiina kenn duñu yeexaat kenn duñu la ñoom nee nañu daal dund gi dund àdduna rekk la nit ñaa ngi nii bët bu set ñu ne nga gis ku dee bët bu set nga gis liir bu juddu nee na noonu la mbir mi doxe waaye ñu dee woon duñu dekki tabarkàlla ku gàtt xel ndeysaan lii mooy gis-gisam namuutu wa naxyaa soo fi duggee sotarak gis euh, ndeysaan clients yi namuutu di wàcc wa naxyaa clients yi di yéeg tabarkàlla mu fees del boo boo xalaatee danga naan kii moom du ñàkk ay client mukk tabarkal ko defee sotraak bi dem rek di dem rek waaye bis bu àggee Camp Leclerc ba taxaw chauffeur ba wàcc receveur ba wàcc client yi wàcc kaar ba naan wëyëng kenn du des ci biir waaw na mootu am na ñuy wàcc ci are yi am na ñuy yéeg waaye bu ñu demee ba ca tabarkàlla terminus ba dama ne kenn du des ci biir noonu sotraak mel noonu la tabarkàlla ci misaal noonu la àdduna mel moom it fi nekk nii tey jii am na am na ñu yéeg ñëw na ci arrêt car bu ñuy wax am na ñëw na ci arrêt bu ñuy wax àllarba ñëw ñëw na tey moom àdduna ci arrêt bu ñuy wax àllarba arrêt boobu tollook fukki fan ak ñett ci weeru cent janvier 1999 arrêt boobu àdduna taxaw tey dina am ñoo xam ne ñii tey la ñuy yéeg bari nañu lool tabarkàlla boo demoon ci fi jigéen ñi nekk ci maternité ñi ñi yéeg tey ci ci sotoraak adduna bii bari na lool tabarkal waaye na mootu boo demoon tey hôpital nga dem principal wala nga dem Fann maa ngi dem Dantec maa ngi dem Grand Yoff am na ñoo xam ne tey kii ci mercredi le 13 janvier 1999 ci arrêt boobu nga xam ne ci la adduna taxaw am na ñu baree bari ñu wàcc tey kon noonu la adduna mel bët bu set day dem ci benn arrêt taxaw am client yu yéeg yu bari tabarkal seeni mbokk kontaan ngénte leen xaq mu am ñoo xam ne ci arrêt bi lañu wàcc tey seen billet jeex na ñu yóbbu leen barsaq la suul leen foofa ñu ñuy xaar gis nga yéeg googu ñuy yéeg par arrêt waaye wàcc googu ñuy wàcc par arrêt àdduna nag bis bi demee moom tam ba àgg ci terminus ba su boobaa léegi client yépp ay wàcc tabarkàlla liir yi wàcc paa yi wàcc meer yi wàcc ustaas yi wàcc kenn dootu des ci kaw suuf loola mooy tekki ne mbir mi jeex na waaye gis nga sotoraak bu ñëpp wàccee ba mu jeex nga ne ah client yépp jeex na dootu amaat kay bu jógaati ba bëgg a jël ligne bi day feesaat del del fu mu jëlewaati client ba fees foofee mooy nit ñi dañuy demati àdduna it noonu la su demee ba tukki ba lépp raaf ba ñépp na ci seeni biir bàmmeel yàlla tabaaraka wa taala sotraak ah, bii di àdduna bëgg a départaat da gis nit ñi feesaat del noonu dong mooy mbir yi tabarkalla waaye ku dul xalaatin mbirum yàlla noonu da ngay wax ne ñun dañuy dund ak dee rek waaye kenn du dekki tabarkalla wallaay ñun ñëppay dekk yàlla ñu yàlla jàppale ñu ngi ci soratu almuminuun aaya ñaar fukk ak wala fanweer ak juróom-ñett ñu ne in huwa yonent bi nekkul illaa rajulun lu dul benn waay iftara mi ngi sos alallaay ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg ñu ne yonent bii daal day sosal yàlla waaye lii muy wax yàlla waxu ko ko wa lahu bi muminin du ko gëm du ko gëm mu wax wax wax ñu ne ko daal wa ma nahnu lahu bi muminin ñun daal duñu ko gëm waa dëkk ba wax ko ñépp ànd ca xaala mu ne rabbi yow sama boroom yaa dégg de wax naa leen ne kenn nga wax naa leen ne yoway yoway yoway aji bind ji wax naa leen ne aji rey waaye dégg nga li ñu ma wax nee nañu duñu ma gëm kon nag unsur nii dimbali ma bi ma kazzabun ci li nga xam ne moom lañ may weddi xaala yàlla ne ko dim daal dimbale amma qalilin nu néew rek la na daañu xëy ñoom ñëpp naadimiin di way rëccu ñoom ñëpp daañu rëccu li nga xam ne moom la def ndax tooñu bi yonent rëccu dong lay jur tabarkàlla du jur leneen lu dul loolu yàlla mu ne fa axasathum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxuk jibril ga ba mu leen jàppee bil xaq ci dëgg fa jaalnaahum yàlla mu nañu def leen xusaan ñu nekk mboob maanaam ñu nekk lu oyof toy daal di alku fa bu'dan lil qawmi zalimina fa bu'dan toskare fa bu'dan alkane lil qawmi ñeel na nit ña azalimina ña tooñoon dégg ngeen saa su nekk bu yonent ñëwee mission ba mu indi ña koy weddi fa ñuy mujj rek mooy fa bu'dan lil qawmi zalimina foofu rek la ñuy mujj fa axasadahum mu jàpp leen ay sayxatu saaha bihim jibrilu sayxatan rajafat laha al ardu min taxtiha fa saaru li shiddatiha qudaan ka xudaay sayl huwa cheyu taafi al axir alladi minhu bi chey aw laa yuntafau minhu bi chey moo di mufassiroon yi ñu ne jibril daf la yuuxu yuuxu goo xam ne ba mu ko yuuxoo suuf danoon rëng-rëngi ba mu rëng-rëngee ñu mujj ñoom ñépp ngir taraayu rëng-rëng nekk am nekk poñ mi nga xam ne bu dee taw puux bi daf koy yóbbu noonu la nit ña mujj mel ñoom ñépp tabarkal yuuxu jibril boo dee seet bu xeexu sinwaa amee karaté ab karaté ka balaa dóor morom ja fokk day yuuxu yuuxu boobu muy yuuxu dafa am lu muy def jeexantal ci ki muy songol waaye naka noonu yuuxu yooyu daan am ci kër yi dañ ci daan yaree gone yi mooy jékki-jékki gone wax aw saaga wala yooyu nga ne ko tuub baatu tuub googu moom la jibril di def ku mas a wax lu juunu rek mu tiim dëkk ba rek ne leen tuub baatu tuub boobu rek tabarkalla rajafat lahal ardu min tahtiha wala min tahtihim kooku boobu yonent daal di féete boor di ñaareelu yonent ci saar bi suñu borom tabaraka taala di ko nettali mu ne suma ginnaaw ga ansha naa sosaan nañu min baadihim ginnaaw yonent bi qurunan yeneen xeet xurunan ay nit aaxarina yeneen ñoo xam ne ñëwaat nañu fi ñooña di nitu saalix ña nitu ña qawmu lood ya waa shuaybu ñu ñeet ibnu abbas mu ne hum banu israil tabarkalla ñu indi yonent ya yàlla nee ma mas a nit ñu ma mas bind xeetoo mas a am maa tasbiqu musta jiitu min ummatin ci benn xeet ajalaha fañ ko àppal ne fa lay yem wa ma yastaaxiruuna mosuñoo yéexit ñu ne ab sàngam ngeen di yem ab bu ñëw ci déewñu bépp yu bépp xeet bu yàlla masa wàcc ko suuf ma tasbixu min ummatin ajalaha ab bi ko yàlla ne fii ngay faatoo daal fii ngeen di jeexale daal mënuñoo fexe ba faatuti te àggu fa waaye wa ma yastaaxiruun mënuta agsi te faatuwuñu mukk fu leen yàlla rëddal rek tabarkalla foofee la ñu yem yàlla nee su ma arsal naa ginnaaw ga ñu yónni rusula naa suñu yónent ya yónent yu baree baree bare bare tatra yu toftaloo tatra yu toftaloo mutataali mutataaliina waaxidan baada waaxidin ibnu abbas mu ne yattabiu baaduhum baada yónent yu toftaloo bu yónent demee ti ñëw bu yónent demee ti ñëw ba ñu bari lool tabarkalla téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yoo xam ne yàlla yóbbal na leen ci biir nit ñi waaye kullama jaa saa bu dikkee ummatan aw xeet rasuluha yonentam xeet wa kazzabuhu ñu weddi ko xeet wu nekk bu seen yonent ñëwee ñu weddi ko noonu rek la nit ñi def bépp xeet boo xam ne seen yonent ñëw na dañ koy weddi di ko weddi ba ñàkk ca pexe ñu tuut ñoo ko cay topp ñu ci des ñépp lànk nit ko baax it fu mu mas a feeñ ulama yeeg sëriñ seeg ñu fu waaye mas a feeñ tabarkaala la ci ëpp say mbokk yi mujj a jariñu ndax ni nga nekk ak ñoom jékki-jékki ne yàlla nee na wala nañ def nangam tabarkal yàlla mu ne fa na ñu tofal baadahum lenn ca ñoom baadan lenn ñu toftaloo wa jaalnaahum ñu def leen ahadiitha ñu leen di waxtaane ahadiitha ñu leen di waxtaane léegi yonent ya dem gaa ya dem ñu leen di waxtaane léegi firawna ma lankaloon yàlla ak Muusa ma ko doon woo ca yàlla ñu leen di waxtaane léegi Namrus ma lànkaloon yàlla Ibrahima ma doon wooteel yàlla ñu yóbbu leen ñu leen di waxtaane léegi kon su ko defee bu ñu demee ñoom ñaar fokk am ko perte te it ki nga xam ne moo doon wooteel yàlla nekkoon ci njub moom mënta perte moom fokk rek moom day day tonawu fa bu'dan alkande li qawmin ñeela nit ñoo xam ne laa yu'minuun duñu gëm laa yusaddiquuna allaha wala yusaddiquuna rusulahu rusulahu su ma ginnaaw ga bi yonent yu bari yooyu weesoo yàlla mu ne arsal naa muusa yebal nañu muusa wa axaahu ak mbokkam haaruna ka ñuy wax moom seen xissa moo gën a bari ci alxuraan ñoom ñaar ñi ak xissa yonent yàlla aadam alayhi salaam ndax xissa yi dafa am solo ndax xissa muusa bi moom du xewi mukk nii la ko yàlla jàppale di la ko jàppale ba ci suratul xasas mu indi la ko indi bu gën a yaatu mu ne wa suma arsal naa ginnaaw gu ñu yónni muusa muusa wa axaahu ak mbokkam ma bi ayaatina ci suñu aay wa sultaani mubiin ak lay wu leer tabaarkalla ngone saa nga noonu ñu koy wax summa bu mag ñi daan jàng dañ ko daan wax ndeysaan gone ñàkkul caay-caay mag ñàkkul béjjaaw summa ñàkkul sadda la alakum njool mi soo weesoo kaang ma sàddaal ma laam nga tabaarkalla yàlla yàlla fay la yàlla mu ne ñu yónni leen fu ñu leen yónni ilaa firawna ca firawn wa malaihi ak assemblem ba wa malaihi ak mbooloom ña nga xam ne ñoom lay diisool ña nga xam ne ñoo koy jox ay sañ-sañ ña nga xam ne bu bëggee sañ leen ñoom la cay waxal moo tax ilaa firawna wa malaihi firawna akum malaam alxuraan bokk na ci li mu yéeme gis nga ci jamonoy yuusuf alayhi salaam nga xam ne firaaw na xewagut sóoratu yusuf yépp doo ci gis baatu firaaw na booba azizu misra mooy xew wala yu demee ne yi waaye bi nga xamee ne jamono jooju jeex na ba firaaw na xew nga xam ne ku tooga ci rek tudd firaaw na dañuy wax ne farra awnu mooy baat bi ci arab dafa am bés waa ja ku tudd toog fenn di jaay masalan ñu jël xaal xaal bi mu jëndee ko juróom benn fukk benn juuti ñëw fekk ko fi mu toog di ko ci laaj six mu ne moom lu ñuy jaayee lu muy jëndee juróom benn fukk lu muy jaayee juróom benn fukk ñu laaj ko six du ko def mu daal di daw ñu ne farra awnu loolu am nañu ko wax tabarkalla ci mbir foofu la firaw na tàmbalee jamono yi Yusuf amutoon waaye jamono yi dafa amoon alxuraan it loolu bàyyi na ci xel soo demee na ki histoire bu baax gistu ko xóotal ko daa xam ne wax dëgg yàlla am loolu mooy li ndax jamono yooyee na amutoon ay faraana léegi nag la daal di am boo moytuwul ñu daan def ku toog ca gàngnaay bi rek ñu tuddee ko firawna firawna moom mu yàlla yónni ci moom Muusa ak Haarun ba mu dikkee firawna ak almala ñoom ñépp fastakbaru ñu réy réylu wa kaanu ñu nekk xawman aw nit aaliin yu kowe xaw ma nit ñoo xam ne aaliin yu kawe lañu maanaam ñu jubadi ñu xaw a bew wala boog ñu bew moo di loolu rekk mooy nekk ñaari taxawaayu gaar ñi nga xam ne ñoo weddi seen borom tabaraka wa taala fa xaalu ñu wax ñoom albalaw an mu'minu ma ndax danañu gëm li basharayni ci ñaari nit misli yu mel ni ñun sol li ñu sol di lekk li ñuy lekk di waxe ni ñuy waxe ñëw rek nañu yonante lañ ñu gëm leen wa qawmuhuma te it seeni mbokk aabiduuna lanaa ñun la ñuy jaam wa qawmuhuma lanaa aabiduun ginnaaw ñoo yilif seeni wajur daal yilif seeni mbokk daal bu ngeen ñëwee fii naan ay yonante ngeen da ngeen a goog rek waaye xam ngeen ne tabarkàlla du ngeen dara fa kazabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar fa ñu bokk minal muhlakiina ci ñi al mu ngoog bu ñu weddee yonent ya daal alku rek euh, tabarkàlla yàlla mu ne mu ngi noonu wala xad aatay naa moonte joxoon nañu muusa njàmme alkitaaba téere ba laallahum xay na nitam ña yahtaduuna jube ca waaye bañ leen ko joxee jubewuñu ca ndax dañoo weddi yonent ba tabarkàlla weddi la mu indi weddi kam àndal weddi yàlla tabaraka wa taala mu ne wa jacal naa ñu def ibna maryama doomi maryama ja mu di isa wa jacal naa ñu def ibna maryama doomi maryama ja wa ummahu defaale it yaayam aayatan di màndarga moo xam ne day wane ne yàlla kenn la yàlla rekk yàlla muy mujisa azima tadulu ala kamali qudratillahi subhanahu wa taala mu ne wa aawaynaahuma ñu tafleen wa aawaynaahuma ñu laqaleen ah, ila rabwatin ca xurwa zaati qoraarin xurwa nga xam dafa amoon sax wa maciinin amin ndox mu neex ibn abbas mu ne al rabwa al makaan al murtafi min al ard wa huwa axsanu ma yakunu fihi nabaat kon boog moom tund la ko tuddee ila rabwatin ca tund wa zaati qoraarin boromuk sax wa maciin ak itam ndox mu neex nga xam ne ca la ñuy naan dëkk foofee moom nag mooy makaan murtafi min ardi baytil maqdis tabarakàllah mu nekk mustawiya yastaqiru alayha wa ma in jaarin zahirin lil uyun alfaqru raasi mu ne alqaraar al